maanaam RTS ak jafé jafé yi nga xamné nak nag fu mu toll ni am nañ ko ak euh, le nouveau directeur général muy Pape Alé euh dinañ def ben présentation bu ndaw ak li nga xamné nak nag moo ñu xaw jaaxal mooy li nga xamné ñoy ñoom syndicalistes yi nek fii nga xamné mom moy RTS surtout ñi wax ni SYNPICS ak euh, CNTS dañu daldi and ak li nga xam euh, li nga xamné mom moy projet wu wala xex bi nga xamné nak mom la Pape Alé sumbu fini fi nii. à chacun nag avec sa manière de mener sa lutte. waaw mais nag bu dee bëgg ngeen dégg-dëgg ànduñoo ak Pape Alé tey ci wàññi salaire ànduñoo ak moom ëllëg te loolu wax nañ ko ko bi biñ ko ko waxee tamit am na lu ñu wax te ñun ci loolu lañ nekk vraiment dool loolu moom du ci yëy yàbbi du ma ci sori ànduñu ci tey am na moom nag daf ñoo taaj ñun ñëpp wax ñu waaw bi mu ñu waxee ñu nit ñu tontu ko te liñ ko tontu nag ci lañ tënku ba tey annulé wuñ ko waaw dafa ne suspension la def waaw léegi suspension boobu nag dafa am lu ko waral parce qu'on a vu les conditions dans lesquelles cet accord a été signé Modou Guiré nous ñu assisté à négociation négociations. mais ba nous signé dañ ko dit génne woowuñu ko ci sax te moom li a assisté à négociation négociations, d'accord ko xamul ne nekkul ci accord bi Racine la signé te loolu c'est l'occasion pour nous de revenir sur tout ça vraiment non au niveau de CNTS on est en parler. parce qu'on a ñaara am da ngay négocier bu la leeree ni un nga nga wuti

400 membres ñuy wax mënon nako sax rombu jall mais c'est trop facile nga xey suba nek ci ben kër bo xam dictature mo fa am nga jël turu ku lo neex reverse ko ci ben syndicat sous prétexte que bu waxé dañ ko waccé wala ñu affecté ko comptabiliser ko comme membre lool mo fa am mais biñu démé élection deug yu jaar yoon ñom gisuñ sax bëcëk lool moy deug bi benen bi jeunesse syndicat yi fokk nga xam lu mu juggé ñun biñu ñëw RTS fekkee ne ñaari syndicat muy SYNPICS synthèse, existé woon depuis très très très longtemps n'est-ce pas Synthèse, vous ko xam mooy la centrale euh, bi gën a représentative ci Sénégal de bu Mody Guiro SYNPICS c'est le seul syndicat de la presse ñoom nag nee nañ syndicat mu ngi tudd pour l'audiovisuel public kon donc yéen yéen ñi sax ñuy rafetal naan mooy publicité bi dégg naa bu ñu joxee RTS publicité euh, bu ñu ko defee joxee financement bu baax day tax ñu dellu de la publicité yéen privé ngeen dund suñu xalaatoon privé ñoom duñu ne audiovisuel public parce que bu ñu ne public yéen privé bokku leen ci muy ay anomalie yoo xam dama koy génne rek après en passant nest pas beneen bi li xewoon démb ñun du loolu la ñuy commenté mais boo ma laajee ci ñun RTS nu muy doxee wala par rapport ak notu directeur général bi foofu mun nañ ci tontu parce que ku mu neex boo d'accord nga génn nga kaas nga def loo neex loolu ku nekk am ko sa droit xëy na ñoom loolu lañ def ñun duñ ko commenté sauf que dinañ parce que intersyndical saint SYNTES lañ nek ñoo le collège des délégués collège des délégués nak génn génnaalewul franche bi génn gis ngeen ko ñom nee nañ pap lañ tuddu ñun lañ nek lool précision bo fa ñu def ko. benen bi li gëna indi coow li xam nga lan la wax bi yépp moy ñun ñoo déposé accord bi avons ñoo dénoncé ancien accord bi comme nous ko waxé ci code du travail tu dénonces tu proposes tu négocies ñun ñoo ko dénoncé parce que 2005 la 2000 ba bi ñu koy dénoncé en 2018 mu ne DG bi fi nekkoon mu feebar ñu xaar ko ba 2019 ñu commencé négociation yi bi ñu demee ba 2020 2021 affaire war a jeex mu des am deux points d'achoppement ñu d'accord si Modou Guro, témoigné ko ak Bamba Kassé ba ñu war a jàpp date pour signature mu ne attanu ko bu ko signé mënu ko parce que duggul ci budget yi ñu toog di xaar xëy suba mu ne dàggal na négociation sax du waxatee ñun mais li ci am yëpp pour résumer ñun bu ñu signé woon bu yàgg seen bi du exister parce que Racine Talla moo dem ba sës xamul fu muy jaar mu créé si syndicat moko créer de toute pièce yónnee directeur de rajo bi fi nekkoon directeur du capital humain ak euh, directeur des urines bi fi nekkoon ñu def l'ensemble de 14 régions menacer agents yi pour ñu ñëw intégrer syndicat bi ñi ci bañoon ñep dañ leen wàccee delloo si leen Dakar kan mënu ko weddi kon lepp lu leen mun ci wax peut-être yak temps la woon ak raconter du n'importe quoi mais nak vous avez jugé de vous-même bu fekkente ne am na koo xam ne mun na taxaw di wax euh, que ñun dañuy jóg parce que dañu dig ay poste wala parce que parce que su fekkee ñoom ils ont des choses à se reprocher nañ ko reprocher seen bopp parce que bi fi seen Racine tala nekkee woon di dagg salaire u jàmbur yi di dàq nit ci di tëj nit ci ñun ñii yóbbu nañu session de recherche ñu def audition ci plainte bu mu déposé woon pendant six heures d'horloge ci loo xam ne li ñuy wax dëgg la xam nañ ko ñoom ils étaient là boobu jul patrimoine RTS lañ doon protégé parce que dañ jëloon oto yi pasar pasaree ko jaay ko seen bopp ci ay prix yoo xam ne normalul ñoom ils étaient la bi ñu ne dañu privé salaire cent mille francs avance ñoo xam ni ay père de famille ay mère de famille waaw mais loolu avance su cent mille francs la mais boo jàppee six agents dagg seen salaire ñi ay quatorze mois ñi ay huit mois ñi ay six mois ci ay motifs yoo xam ne dara jaaru ci yoon mais ñoom lu leen privé lu leen privé ëppul tabaski xam nga kon loolu mauvaise foi lay niru n'est-ce pas un syndicat nag bu fekkee da nga ne da ngay défendre intérêt matériel et moraux loolu mooy rôle syndicat mais ñoom léegi lañ changé ne dañuy défendre matériellement et moraux des agents ils avaient dit que ñoom duñu syndicat bi xuloo bi xeex dañuy négocier ki fi nekkoon mosoo dégg ñu reproché ko quoi que ce soit et pourtant vous êtes au courant d'un niveau de 33 milliards boo xam ne xaajul pare est-ce que mos na dégg ñoom ñu wax ci pause première pierre ñoo fa nekkoon di tàccu à la réception ñoo fa nekkoon di tàccu bu dinañ parce que man sax ma ba euh, sama direction euh, bi ma nous la révélation boobu euh, RTS bi amul dara parce que de nous la ñu nous non non ma man ñi nga nous ne fa nous dit wax li ne li am parce que même journal télévisé nous ni nous affaire pas, nous ancien qui saal nous lañ jël ñu retapé fa la nous li nga pas, journal. exactement parce que nous koy nous façade après j'ai jékki le man la studio bu bees bi ñuy defee journal mais ñaari bâtiment différent là les spectateurs mën a comprendre ni du façade bii la ñoloo ni ci biir fa la studio bi nekk da ngay foog ne façade bi dafa rafet studio baa ci suuf c'est différent studio boobu nga gis dañ ko rénové ci ancien bâtiment bi la nekk bâtiment bële façade kese la pour l'instant waaw so scandale bu toll noonu ñu def ko sa entreprise waxuloo ci utoo ci benn solution nga jël mu féete boor ngay tudd ay xaw ma ay gérant de site wala je ne sais pas Nous administrateur de site nous dañu je ne sais pas mais nous, je ne vois pas je ne sais pas bu fekkee ay agent lañ wala ay nit lañ mën inconvénient parce que vous étiez au courant de ce qui s'était passé à Walfadjri am agent bi fa ne du ko fa RTS ko jël ko ko wax kon tant ñu am compétence tant ñu rien à redire c'est une affaire de gestion peut-être ça incombe à à ils étaient là Ils ont rétrogradé ñun nous étions de bons travailleurs nous étions de bons travailleurs on a dit non quand il fallait le dire Nous cœur. nous ligne téléphonique

parce que kooku moo taxoon agent bu nek Saint-Louis par exemple. ñu bëggoon ko affecté à Matam. kooku élection délégué est-ce que battu ba ñu gagné à Matam ñu ne nag tant que génneewuñu ko Saint-Louis ñom duñ am jamm affecté ko Matam mu ne demul ñu remercié ciel et terre mu ne demul man ak kii jàbbante nañ Saint-Louis Dakar plusieurs fois. benen bi sax maag Mohamed Faye ñu àndoon dem ba un coup de route ñu woñu ñu ne ñu non affaire si reporté ñu dem ba Saint-Louis dellu si waat combien de frais de huissier on a on a dépensé combien on a dépensé pour les avocats. ñom ñu tok fi ñu tok défendre ñoñ au contraire ñom ñoo leen enfoncer ñun ñi ñoo doon ñeneen kaay ñun ñi lañ wacce won du tok suñu kër naan way ñu ko ci dem am nga géetu xaar am nga magasin mais ñun on réfléchit bu ñëw suñu entreprise ñun du gën fi liggéey dem la ngeen tok affecté ñu leen fenn bo ñëwee arbitrairement ñu lay def yéru xamni yow dom a om kenn do ko sañ def ki def dafa am fu mu ko wék am fu mu ko tek nga utiliser sa xel Nous sommes des, nous, on a entrepris, nous sommes, on, on, est devenus des entrepreneurs par la force des choses. Moi, je ne m'en cache pas, j'ai entrepris. Vous keneen amee xar bëy nag man tamit sama yoon nekku ci mais man j'ai entrepris je ne m'en cache pas n'est-ce pas beneen bi nak fi may terminer wala je ne sais pas j'ai en attendant d'autres questions dégon ngeen fi après la pluie c'est le beau temps n'est-ce pas wa léegi un bon journaliste hmm? dina taw ba lour yow ngoo ñëw mëno sax yegg ak sa auto ñu gaari auto bi fi nga retouché say pantalon xuus ba xool fi gën a kawe nga ñëw taxaw fa fu wow tuuti nga ne après la pluie c'est le temps loolu yëpp pour couvrir ni état bi fi nekk